fa mahma toola allaylu la budda min duxuli alfajri wa mahma toola alumru la budda min duxuli alqabri mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi siyaare bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne teew nañ ci bisu sell bi te di si jiital kilifa yi di si jiital baay bàcc lum mi nga xam ne tey ji mooy cosaanal yëf li ndax ki nga xam ne moom la yàlla jaarale ci moom bis bi muy sëriñ alaaj jimba euh, ci njaboot gi la bokk comme ni ko ñëpp xamee di ndokkeel ñëpp nag ci teew bi ndax bis yu mel ni di ci teew baax na waaye di ci teew li ci ëpp solo nag mooy di xam li tax a jóg bis bi mooy kenn kuñ koy defal ci njaboot gi te yàlla dogal mu nekkoon ci suñu biir te nekkatu ci ñun ñëpp ña xam ne dinañ ko fekki te xamuñu kan la kañ lañ koy fekkee ak naka lañ koy fekkee euh, ndax li ñu xam ñun ñëpp mooy ki ñu koy defal euh, ak dundam guddul woon ndax buñ koy xayma dañ naan quarante 42 ans la loolu guddul ñu baree bari ñoo ko fi gën a yàgg kon ñu yëg ne euh, li mu dese fi mu ne ni li ci ëpp doole mooy ku fi teew rek na ko ñaanal ndax nit mën naa ñëw yegg si toog ba ñibbeem jot mu yëg ne deful genn ñaan ngir ki tax ñi def bis bi waxul allahumma ghfir war warhamhu waxul yàlla yàlla na nga jéggal soxna aw Seck yàlla yàlla na nga ko yërëm te loolu ku ko def ñëw ba yegg si fii dem yëgal ne perte nga sa temps sonal nga ki ñu koy defal te amuloo ko njëriñ ndax Serigne Saliou dafa waxoon ne ñun doom yi soxna yi de euh, cat daf ñoo topp ba ci bàmmeel ndax saa suñu tuddee diw dañuy barkeelu ci moom rek Serigne Saliou ñu ne yàlla na ñaal taas ci te duñu wax mukk ne allahumma ighfir lahu warhamhu wala léeg nga dégg ku ko wax sax ñu jàpp ne dafa ñàkk teggin te fekk amul lu ëpp solo baat yooyu ñuy tofal ca turam wa mooy yàlla yàlla na ko yërëm te jéggal ko loolu ëpp solo ci liñ koy defal alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon nag ne nit ku génn àdduna ida maata al insaanu inqataa amaluhu illa min salaasa bis njëkk mooy sadaqatun jaariya aw ilmun bi bihi aw waladun saalihun yad'u lahu ku génn àdduna kum mën a doon moo xam mi ab sëriñ walla mii ab donga ku mën a doon ñett nga dese ci àdduna su dee bàyyi nga ko fi bu si njëkk mooy sarax boo fi defoon njariñ la di woy di jariñ nit ñi luñ ca jariñu yàlla fay la ca tiyaabo mu di la fekk sa bàmmeel wala xam-xam boo jàngale woon ak xam-xam bu mën a doon mooy ilmun bi bihi moo xam da nga ko jàngaloon nu ñuy bayee mu man ko ca wala nu ñuy defee commerce mu man ko ca njariñ lu ca am bu ci jëfandikoo dimbali ci njabootam yàlla di la ca fay tiyaaba di la fekk sa bàmmeel wala lii nga xam ne mooy bis bi mooy waladun saalihun la xuu doom ju baax ba noppi di ñaanal way juram kon doom ju baax ju dul ñaanal way juram amalul njëriñ wayjur wa waaye doom ju baax juy ñaanal wayjuram alayhi salaatu wasalaam nee na ku faatu ku ne ñett yi rek ñoo la mën a fekk ci liggéey waaye lépp loo fi bàyyi woon ñàkk nga ko mooy jabar yi ak alal ji ak njaboot gi des na ko séddale doo ko fekkee kon lépp loo fi fàggoon bàyyi ko fi te nekkul sax njaboot gu baax yëgal ne perte nga te alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne ku ñaw ku muus piir mooy koo xam ne mu ngi régler ay jëfam di bàyyi xel boppam fexe ba bu génnee àdduna bis bu ko yàlla rek ca sonn alkayisu man daana nafsahu wa amila baada al mawt waaye wala aajizu man atbaa nafsahu hawaaha wa tamanna ala llahi l ku muusa di mooy koo xam ne dafa topp bakkanam ba noppi di xaar soxlaam ci yàlla maanaam topp sa bakkan ba nopp bëgg yàlla di la fa yar say soxna say soxla alayhi salaatu wasalaam nee na loolu ku ko def yaay ki nga xam ne muusoo te euh, dafa am lu mag ñi daan baaxoo di def bu njëkk mag ñi dañoo bëggoon jàng lool dañ daan jël laxdari mooy bunt bu njëkk ba laataa nga yegg ci façon fi tahara ca wa yaxaruma yeeg wa yajibu yeeg wala mu mukallafi ak yooyu dañ daan def duñu xëy mukk ba ngoon jot ñu tëdd ci lal te xooluñu ñoom nuñ def ak paas yooyu xool li laxdari tere ci paas yu njëkk yooyu yan lañ ci def ak yi mu digle yan lañ ci bàyyi loolu bu ko nit ki di farale di def balaa ngoon a jot dina lépp lu muy waaj a def te defuwul dina wax ne ah lii kat bu ëllëgee na mën na maa lëjal kon naa ko moytu ndax li ëpp doole ci àdduna mooy nit ki di régler boppam di xam yi muy def te defuwul bu ëllëgee mu mën koo lëjal ndax euh, faatukat li nga xam ne xam nañ ne borom bis bi Euh, bëggoon na ko fekkee léegi comme comme ni ko mbokk mi waxee bëggoon na ko fekkee comme ni ko mbokk mi waxee léegi ndax sàkkoon nañ ñi def ko ci kanamam waaye yàlla dogal fekkewu ko te ñun ñëpp xam nañ ne danañ dem ci barab boobu mu nekk te yàggatul ñu war a bokk ñun ñëpp itam ci li Serigne Touba doon wax ci xoqal bu kaaw bokk ci ñi nga xam ne bu guddi gi demaan ba dugg nit ñi fatu dugg seeni néeg ñun buñ duggee ca néeg ya nekkee fa di naafila ak di yokk suñu tiyaabo ba bu ëllëgee ñu bañ a sonn kaanu idal laylu arxa sitra daa xalakin qaamu siraan li ihyaa iddu junnaati te li xew léegi nga xam ne nit ñi dañoo jàpp ne daanaka aljana kenn ku ne sa wàll ma nga fa di la xaar ñëppay dugg aljana te loolu Serigne Touba waxu ko Serigne Touba moom la mu dafa leer dafa bindoon ab leetar daal ne kenn ku ne na xool na ngay doxee man nag nii lay doxe dafa xam ne maa ngi bind leetar bi di ko jëmale ci képp koo xam ne xamul mbiri kii bind leetar bi mu ne dafa wax ne gannaaw bu mu sant yàlla kii bind leetar bi daal musta tooñ yàlla boroomam musta tooñ alayhi salaatu wassalaam musta jubale ci ñoom ñaar lenn loo xam ne jubuwul depuis mu xelu gannaaw loolu nag mu ne dafa bëgg a wax ne moom daal allahu tabaraka wa taala rabbi yàlla mooy boroomam sallallahu alayhi wa sallam mooy yenentam mooy euh, wasilaam ci moom lay jokk jëm ci boroomam tabaraka wa taala alquran mooy tegtalam mooy njubam lislaam mooy diinaam kaaba gi mooy xiblaam nit ñi nag léegi dañuy bëgg a topp Serigne Touba jàpp ne euh, bu yow mal bu yàlla taxawee ne lii Serigne Touba taxaw ne lee te Serigne Touba demeewul noonu moom li mu wax mooy ma nga ca ndigali boroomam di ko jëfee bàyyi na ay tereem ku ko topp ci loolu nga koy nga koy toppee te dafa am loo xam ne dañ ko war di bàyyi xel mooy di sukkandikoo jëfi nit ki naan Serigne Touba jëf na wala sama maam jëf na wala nangam déedéet Serigne Baye Diakhate dafa wax ne bul dox di sukkandikoo kenn ak jëfam ba jëfoo bàyyil ku nekk jëfam jëf nag sa jëf dajale bul dox di sukkandikoo kenn ak ba jëfoo bàyyil ku nekk ak jëfam euh, jëf nag sa jëf dajale te loolu mooy li nga xam ne moom la ñëpp war a bàyyi xel te fee nga xam ne moom la mbokk yi jiitu nekk Serigne Touba dafa wax ne ku fa dem ku ne la lay gënal mooy dellu siyaat ci àdduna donte benn saala nga jëf ci benn jëf ju baax ndax boo demee mën la faa jëriñ ñun na comme yàlla dogal na ñoo ngi fi te demaguñu kenn ku ne na yokk say jëf yu baax na xam ne boo demee ñëw yombut ñëw sax mënta te ñëpp mënuñoo am bis bu mel nii comme yaakaaroo loo fi bàyyi mu lay fekk si da fexe ba balaa ngaa dem. li nga man lépp nga jëpp soo koy def ndax wa argabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunia maal xayaati wala sufayatan faqat li yamalu solihatan tanfaahum in gafalu te bis bi am solo ndax ndax euh, jur dafa am ay àq yu rëy ci doom boo xoolee sëñ Tuubaa ba mu nekk ak sëñ Maamor Anta Sali daan nekk ci ay service lépp loo xam ne sëñ Maamor soxla na ko mu nekk ca gis ngeen ba ñu ko toppoon comme ni alayhi salaatu salaam doon def leneen léeg nit day ñëw ne ko ah sang bi man de damaa bëgg a jihaari mu ne ko ndax say jur a ngi dund ñu ne waaw mu ne demal nga jihaar ci ñoom kon moom bu wëlbatikoo di def lii di ci ñàkk alalam di ci ñàkk taam di ci sonn lépp ngir dab ngërëmal waajuram dañuy xam ne yoon woo mu jaaru yoon wal gis nga siñ Tuubaa ba Cheikh Omar Fall ñëwee sax ci moom daf ko ne dellul ci say jur nga lëggéeyal ma ci seen ron moo tax kon ñi fi teew ñëpp war nañ di bàyyiwaat xel seeni waajur bu ñu amee soxla ñu taxaw ci te bañ di jàmbat léeg-léeg nga gis ñoo xam ne sax ndeysaan dañuy jàpp ne seen waajur dafa mën a laaj wala dafa mën a nangam waaye lu ñu am alayhi salaatu salaam dafa am benn waaye ñëw ci moom jàmbat ko ne ko man daal sama waajur moom dafa mën a laaj lool moom daal lu ma am rek mu bëgg koo jël mu ne ko demal woo sa waajur mu ko mu ñëw mu ne ko kii li mu wax loo ci déggee mu ne ko dafa am ay jamono ma amoon kàttan mu néew kàttan ma amoon alal mu amul alal lu ma am ma di ko def ci moom mu dem ba màgg ma màgget mu am doole aw ma doole mu am alal aw ma alal bu ma soxlaa nag mu bëgg maa nay alayhi salaatu salaam jooy daal ne wax jii day doj wu ko dégg di nga jooy garab bu ko dégg dinga jooy daal dina ko gees ne ko antawa maalu ko li abika kon ñun ñëpp ak li ñu am suñuy wéjur moo ñu moom kon képp ku dem àll ba moo xam Dakar wala sàngam wala da ngaa sa kër bàyyi bu neer wàcce na nga yëg ne lu la sa waajur mosal loola nga am waaye yow yaag li nga am lépp say waajur leen moom te képp koo xam ne fexe na ba àqi waajur dal ci sa kaw mooy soxla na ci yow dara mu jafe te nga man ko bu yowmal xiyaame mën na laa la jël te loolu euh, Sëriñ Tuubaa loolu la ñuy jàngal te loolu la ñuy moytuloo te bis bii nag bu ñu ne fii rek la yem ci àdduna waaye kañu koy defal ma ngi koy yëg kañu koy defal ma ngi koy yëg ndax alayhi salaam ne inna amalakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum fa in kaana xayran istabsharu wa in kaana gayra dalika qaalu allahuma laa tumithum xatta tuhdihim kama haditana dafa wax ne kenn say jëf ñoo ngi koy wan say way jur di ko wan say jegeñaale way jur fa ñu tëdd ca yoomal xeyam juróom a ngi nii yoo xam ne kenn teniwut sa morom kañ lay taxaw kenn teniwut sa morom taw bi kañ lay commencé ndax taw bu ñu waxee kañ lay commencé rek météo sax mën na taxaw fee sàngam lay commencé commencé bis boobu ñaata gàncax lay saxal ak ndax bu ko saxalee dina ñor ak bu ko ñoree kan moo koy jëfandikoo loolu yàlla rek ko xam kon la yunazzil xaysa yàlla kañ lay wàcce taw ak la aju ca taw ba yàlla képp ko xam wa ya'lamu ma fil arham li nekk ci biir i jigéen ñi yàlla képp ko xam nañoo wax sax ne docteur bi nee na kii kat góor lay am wala jigéen lay am wala seex lay am ñu ne docteur bi xam na ko waaye diiréet fekk xamuñu kooku di juddu ndax dina gudd fan wala du gudd fan ndax dina am wërsëg wala du am wërsëg ndax ku texe lay doon wala ku texe di kon wa ya'lamu maa fil arham li ci biir jigéen ñi yàlla képp ko xam wa maa tadri nafsun maa saa taksib ghadan kenn la nga war a am boo ko amee kenn xamu ko boo demee ci kat mu ne la ah yow mii kat santal yàlla ndax euh, waxal alhamdulilah nga ne alhamdulilah mu ne la da nga am alal moom mi la koy wax moo la ko gën a yittewoo moo tax fu ne ni am ijaaba loo ñaan yàlla mu defal la ko wa ya'lamu maa fi arham wa maa taksibu gadan wa maa tadri nafsun maadaa taksibu gadan wa maa tadri nafsun bi ayyi ardin tamuut kenn xamul kañ ngay faatu kon nañ jublu yàlla te waajal bis bi nga xam ne mooy ñëwi mooy bis bi nekk suñu kanam yi bis yom la xiyam ndax euh, Usmaan ibn Affaan daan def buñ ko laajee looy jooy mu ne euh, xam dafa nekk manzil boo xam ne bu métti la ci nit moo tax Euh, dafa am genn xasida goo xam ne Omar bin Abdul Aziz dafa romboon ci ay xabru jooy jooy ñu ne ko waaw Omar lu sabab li mu ne ataytul qubuura fanaa daytuha ayna al muazzamu wal muxtaqar mu ne tafaanu jamian fa ma muxbirun fa maatu jamian wa maatal xabar damaa ñëw ci xabru yi fekk mu mel daal àdduna bi yépp danoo raaf ba tëdd boo fi ñëwee doo xàmme ana moo amoon pouvoir ak ku amuloon pouvoir kan lañ joxoon cër ci àdduna akan kan lañ joxul cër ci àdduna moo tax xayaatul euh, barzaq yi dafa dafa kumpee fu mu ne nii nit léeg-léeg da ngay dégg sax rubba xabrin yu zaar wa saaxibu fi naar nit léegi la ñu jàpp ci àdduna ni ku baax la bu ñëwee di barakatu ci moom di yëkkati li nekk seen xalal di ko jox te fekk fa mu tëdd ca bàmmeelam ñoo ngi koy mbugal moo tax la gën a wóor daal mooy euh, bu fekkee nit njortu nga ci moom ak mbaax ba nga koy ziyaar tam bu mu tee yow na jëf say jëf dajale bul dox di sukkandikoo kenn ak jëfam ba jëfoo jëfal euh, bàyyil ku nekk ak jëfam jëf sa euh, jëf say jëf dajale bàyyil ku nekk ak jëfam jëf nag sa jëf dajale loolu mooy li nga xam ne mooy lu gën a wóor te alayhi salaatu wasalaam euh, dafa am lum jàngaloon saxaaba yi dafa am benn bis muy dox ba jot ab xabru dal di waaxu rek dem bóof sa xabru ba saxaaba yi ne ko lu xew mu ne yaa ixwaan yi li misli hada fa aiddu barab bii day ku koy bàyyi xel di nga waajal sa bopp ku koy bàyyi xel di nga waajal sa bopp Omar ibnu As euh, bu gisaan ñuy gasal nit ab bàmmeel day bàyyeekoo ca foofa daw dem dugg si jàkka ja buñ ko ne lu ko sa bopp mu ne euh, damaa xalaat wax yàlla jami wax waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun yàlla dafa wax ne bu faatu ñëwee de nekkoon danañ dox sa digganteek moom mu ne man nag ma bëgg bu faatu di ñëw fekk la ma bëggoon muy julli su ko defee bu ñu doxee sama digg julli nag ma demee ba yoon xam ñu ne ma loo nekkoon ba faatu di ñëw ma ne leen man day julli doo nga laa bëggoon ndax suñu tubaab dafa wax ne wa wa duma ala alladi alayhi tasbutu law jaa akal mootu kama xat sabatu kenn ku ne la nga bëgg dee fekk la ca na nga ca nekk ndax comme xamoo kañ la xamoo fan lay doon la nga la la nga rek na nga ca nekk daa tax du ñëw nañ fexe ba saxal laa ilaha illa ci suñu làmmañ laata faatu di ñëw nañu fexe bay jokk ak mbokk laata faatu di ñëw ndax euh, salmaanul farsi dafa waxoon ne ñett dañ ma reeloo mooy ku bëgg àdduna te dee topp ci gannaawam ak kuy sàggan te yàlla du ko sàgganee mukk saa su ne mu ngi ci xefi yàlla yi heure bu ko soxlaa xëcc ko ak koo xam ne day bay xaqataay te xamul ndax yàlla daa bég ci moom wala dafa dafa mer ci moom ndax bu la yàlla meree nga nekk ci àdduna dëkkee ree bu la jàppee mën naa bañ a baax ci yow waaye te itam ñu faral di ziyaare ji bàmmeel yi ndax alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne nahaytukum an ziyaaratil xubuur alaa fazuruha maa leen tere woon ngeen di dem ci bàmmeel di ziyaare waaye léegi sant naa leen dee leen fa dem ñu ne ko lu tax mu ne ndax da fàttali dee te àdduna ku la fi dàq fàttali moo la gën a baax ndax moo la koy gën a bàyyi xel ni ñu koy waxee Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nit ku ne ñett nga am nit ku ne ñett nga am dafa am bis mu woo mag ñi ba ñëw ma ne leen mu tomb ñetti tomb ne leen nit ku ne am na jëfam am na ay bokkam am na alalam am na euh, euh, am na ay bokkam am na jëfam am na alalam jëmmam ji nag su demee ba xàmmeetul lu neex ak lu naqadi ay bokk ma fa ay bokkam su demee ba sang ko sang ko jullee ko suul ko ñàkk nga say bokk sa alal moo fa des sa alal jii suñ ko jëlee loo ca deful woon ñàkk nga ko waaw tabax ya ak alal ja ak njaboot ga des na ko séddale te doo ko fekkee su fekkee ne yow ci loolu rek nekkoon nag euh, kon waa ñu lay dond ñoo naan waa ji daal moo bëggoon alal rek su ko defee dañ koy séddoo yow nga selaglu parce que jëf rek lañ lay laaj fa ngay dem mooy ca xabdu ca bàmmeel ak ca yowmal xiyam bis bi nga xam ne euh, moom lañu yàlla préparé kon ñaan suñu borom tabaaraka wa balaa ñëw comme yaakaaruñ wala boog ñu ne danañ am ñu des suñu gannaaw ñu ñaanal ñu fexe ba yóbbuwaale loo xam ne su demee dinañu amal njëriñ Ali ibn Abi Talib dafa am bis mu dugg ci bàmmeel yi daal di nëyoo ba mu daal di ne yaa maa maqaabir jar na faaliwu ko mu ne amma buyutukum faqad sakanat am nisaakum faqad tazawwajna ghayrakum amma amwalukum faqad qusimat ibadallah daal di ne leen seen kër yi day ràpp na seen jigéen ña bàyyi nañ leen fa wuti nañ yeneen jëkkër seen alal ya la ngeen fa bàyyoon kas nii séetoo nañ ko kon lu ngeen jëful woon lu ngeen jëful woon ñàkk ngeen ko kon nag yàlla na yàlla gën ñoo dëgëral gën ñoo tawfeexal te yokk ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah